waaw ah, bokk internet yi ba tey ñu nekk ak euh, monsieur le maire Bamba Fall le maire de la Médina Assane daal koy tuddee li nga xamante ne mooy làmb ji war a am dimanche 16 euh, juin incha allah diggante ki nga xamante ne mooy Marley euh, ak Boy Baol monsieur le maire ñu ngi lay ziar di la nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. non làmb ju neex lay nekk parce que drapeau yi dama ci am am drapeau xalifa Sall ak drapeau Femme Nouvelle Vision yi. Médina nag bëgg a wane boppam keroog làmb ju neex ju am ambiance yi nekk bu neexee yàlla donc euh, nañ ci yegg ak jàmm buñ demee mu jeex ci jàmm mbañaam benn violence tamit buñ ci pare nag Macky Sall bàyyil ñu xalifa Sall nag vraiment jot na nag waaw. si si bëgg na ko dina ko seetaan te wax nañ ko ko yaakaar naa ni surtout na xool moo envoyé délégation bi directeur de cabinet mu ngi nii donc dina seetaan làmb ji na xool drapeau bu neexee yàlla. normalement dañuy def transition du pays nan nga mais tey jot nañu bàyyi Karim Wade Khalifa Sall ak delloo Aïda Ndiongue xaalisam ndax fu ñuy waxee benn ñaari milliards fi ñu tudd ay 6 000 milliards yaakaar naa ne sax diggante yaa ngi wax diggante jën ak nag ñii nañ leen bàyyi defuñu dara. jërëjëf kon nag léegi sama xalaat mooy Macky Sall moo waxoon ne day teg réew mi ci yoon na ko teg ci yoon rek bu dee rakkam la tamit na ko teg ci yoon rek loolu rek la ñuy laaj que justice soit faite ah wóoru ma yàlla moo xam mais bu dee moo def na tegu ci yoon rek. ñoomi neen la ci moom la dépendre ñoomi neen la procureur fonctionnaire ministre de la justice ñoomi neen la. ah waaw ñoom neen la mais bon yaakaar naa bu ñu bëggee mu leer kañ waaye mën na gën a xóot loolu. Ah, ah, ah, parce que ñoom parce que ñoom image yi ternir ñu woon hmm. image yu Khalifa Sall Karim Wade ak bu Aïda Diong ku nekk sa wàll daal tey démb ak bërki dem sunu suñu la woon tey ñoom seen wàll la te seen bos moom fees na dell nag. le mot la fin daal yàlla naa gisanteeg timis ndax timis moom ku gis dootoo baax. yàlla naa gis ne dégg timis fan yii ñëw.